มันจะ waaw jërëjëf xam nga fii mooy seesu mouvement Réccu ñu koy wax jéggi siraat ñi fi nekk di ay anti Macky Sall parce que Macky Sall doon na rabu àll woo xam ne du woow lan soxla Touba Touba lañ fi soxla mooy nag ak bëy ak xar mais ab unk ab saay-saay soxla wuñu ko Touba délégué kii ñu naan mu tuuma nga xam ne ku yàlla bind moo ci gën a ragal ragal la ba xar la gis nga ko nii ñaari bal lañ ko fëgg rek ak tuuti ci ay xeer daa daw ba bàyyi fi otoom beneen kalandoo jiitu mu yëg ci opération bi ñu war a def ngoon mooy zéro carte à Touba parce que Macky Sall ku ne xam na ne dafa toroxal Touba euh, acte trois bii mu def ku ne xam na ne jubluwu ci dara lu dul Touba bañ a màggati ku ne xam na ne Macky Sall mooy président bi njëkk a sol dàll ak mbax na ci kanamu sëñ Touba damay dégg ñu naan yoonu murit kenn mënu koo toroxal waaye Macky Sall tra toroxal gu ne teg na yoon bi ñun soxla wunu ay tëli soxla wunu ay pon soxla wunu dara soxla wunu ay saxaar ñun li ñu soxla ku ñu wormaalal dëkk bi ku ñu wormaalal sëriñ bi Macky Sall mooy président bi sëñ Modou sëñ sëñ Amadou Makhtar njëkk a ñaan ci affaire Karim Wade mu taxaw lank moom la sëñ Mountakha njëkk a ñaan ci affaire Mbaye Touré mu taxaw lànk comme demee na noonu nag fii Touba la Serigne Touba ko moom sëñ Abdou Lahad nag dafa am lu mu waxoon ku doxul jëm ci Serigne Touba pour ñun candidat boo mën a doon boo joxul jëm ci sëñ Touba ak njàngaleem sëñ Touba am nga gàkk-gàkk ñun loolu lañ gëm. sëñ Abdou Lahad dafa waxoon tamit ne ku Serigne Touba doyut bu leen dara am doy te ku ne xam na ne Macky Sall ab naa fekk la bu bon ab saay-saay la ënku la sëñ Touba ñoru ko français yi nekk ci ginnaawam ak franc yi ak ngor jigéen yi fii nag dëkkub diine la opération zéro carte Macky Sall zéro carte à Touba. waaw li waral coow li mooy dañu xëy di waajal caravane que man maa ngi ma dikkee ñaa ñoo ànd. fii yëkkatal caméra bi nga xool ko fii ma dikkee ko moom ñu ñëw ñuy wax ñuy wax di sensibiliser nit ci affaire carte d'identité yooyu kooku ñuy wax mu tuuma nga xam ne lu yàlla bind moo ci gën a ragal ñëw naan dañuy jéem a mais gis ko ba mu fiy ay dàllam dañ ko koo yóbbante na laaj ñi ko fi njëkk a jaar dama leen a dàq ñii ko fi njëkk jaar dama leen a dàq ba nu wër jumaa ji am na sens bu toon jël taxi ay garde corps am ko dañ koy rey fii moom jéggi siraat la tudd sero sero opération zéro carte à Macky Sall noonu la tudd mu Touba mooy politicien bi nga xam ne moom li ko sëñ Touba defal da koo fàtte bàyyi njàngaleem sëñ Touba bi di topp unk yu bon yi mu tuuma tudd na Senghor doom tudd na Abdou Diouf doom barke borom Touba lii ma la dara du ko dindi Abdou Diouf Mbacke nga kërëm Ablaye Wade mbakkee nga kërëm Karim Wade Mbacke nga kërëm sax bu dee mi doonoon ministre sax bu dee Mbacke sax ngi kërëm caga politique la politicien bu jog mu ñëw ne ko topp ko li ko sëñ Tuubaa defal da koo fàtte waaye buy dof doful wala muy am am lu fit na laaj ñi ko fi jiitu 28 du fu ñuy laal bis bu fi taxawee te nag dégg naa waa APR réunion nañ nee nañ dañoo bëgg a yàq élection yi man Moustapha Diouf Lambaye maay wax fii Serigne Touba ko moom ak ay taalibeem Macky du fi am wenn xob dinañ woote ma Madické Niang wala Idrissa Seck massivement APR bu jóg taxaw ne day yàq élection yi dinaa toj sa kër toj sa gat